waaw idée bi yàgg naa ko yàgg naa ko am am na ñoo xam ne dama si doon woo tamit pour di ma partager ak man idée bi di ma si wax tamit aussi mais aw ma woon occasion parce que li may nekk Sénégal du du bëri mais tout le temps mi ngi woon si sama bopp donc bii bi mooy que dañoo jug pour jàppale jàppale xale yi ñuy def sport en même temps di di jàng que ñun condition yu ñu amul woon ñoom ñu mën ko am donc juste que dañuy commencé ci petite catégorie yu tuuti yi 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans dem ci 12 ans ba 13 ans ñu avons leen tàggat ñuy def sport en même temps di jàng xale Nous dañuy commencé 7 ans 8 ans 9 ans 11 ans 12 ans 13 ans parce que wëral depuis toute petite moom moo ñu yoroon du du ñu avant ñuy Euh, Espagne donc bu mu ko jëlee jox ko li war na ma jox ko ko parce que ku la jàngal ba nga yegg fii yaakaar naa boo ko dénkee dina mën a permettre jàngal yeneen xale yi. début la dañoo jël suñu propre def ko ci du kenn ñu kenn xalatuñu kenn pour ñu ñëw di mais pour l'instant ñoo jël suñuy propre moyen def ko ci pour ubbi ko mais yaakaar nañu au fur et à bu fekkee am nañu si bëgg ñëw pour jàpp si mën na ñëw pour jàppale parce que c'est libre.